asalaamaaleykum wa amateres nuyu naa leen ziar leen di wax euh, seen série bi tey euh, neex na trop vraiment chaque jour nag ñu ngi koy seetaan mais euh, neex na trop liñ si wax rek tey mooy que Cheikh calme-toi parce que buñ la waxee rek bala nga réagir da ngay bàyyi ba gisal sa bopp ba pare laala bu mu la wax rek nga ñëw dal ci kaw Marème non lool loolu du yoon Marème nag instant bi li ma gis mooy que bëgg na jàmm. mais laala moom dafa fiir mooy loolu ñemewut wujji laala dalal rek parce que wujjiwee moom du dara bokk wërsëg la di wax joor euh, vraiment dafa décevoir Jalika Jalika nag na góorgóor quant Jalika nag man moom sama xalaat Jalika euh, xanaa nag bu du yëgee euh, biram takk na meilleur xaritam dégg xanaa nag léegi dina ko bàyyi comme ba léegi moom mu ngi def ay doute ba xam dafa euh, ba xam dafa bëgg biram ba tey wala bëgg ko yow yaa ngi am ku baax koo xamante ne ndekki sax ca kaw lal bala la koy defal lépp lépp mu la koy defal mais nag da ngay page nga jéem a xool looy def xam nga nekkaat ci leneen daal bàyyi loolu mu passé parce que moom biram dafa mel ni moom narut a changé parce que bu duggee ci lii nekkaat ci leen bu duggee ci leen nekkaat ci leen déjà mu ngi créer encore beneen problème boo xam ne kenn xamul fan lay jëmee. donc du coup day xaw a métti trop man daal bu doon maa jalika daal waa ci sama xalaat fa war euh, changer page yu biram bàyyi ko daal waa nekkaat ci leneen daal nekkaat ak waayam di wees yooyu ñëw nga xamante ne macha allah waaw du sax moroomu biram far nag dëgg neexut. waaw salaamaaleykum euh, nuyu naa leen ziar naa leen. yal na bàyyi ngi am jàmm en fait euh, di bëggoon participer ci émission bi rek euh, di def euh, lu dul kontaan bu baax a baax baax ci émission bi franchement maîtresse d'un homme marié mu nekk série bu neex série bu am sens série boo xamante ne dafay yeete franchement ku ci xamul woon lu bëri tamit di ci xam lu bëri et puis ñoom li ñuy joué nii dafa nekk li nga xamante ne dafa am dafa am franchement man daal Marème euh, maa ngi maa maa ngi ci côté Marème franchement Marème maa ngi ci côté parce que comment se fait-il que yow nga ni euh, grande dame nga da euh, comment dire xam nga li charia wax te jëkkër ji am na droit takk ba ñeenti jabar dégg kon moom warul comporte woon nii waa Lalla moom franchement bàyyi na loxo man daal maa ngeeg Marème waaw merci. asalaamaaleykum waa maîtresse ñoo ngi leen di siyaare bu baax di leen bëggee ñoo ñëwaat waa di wax série bi am na solo lool dañ koy bëggee bu baax di leen bëggee ñëpp waaw di leen xamal ne série bi moom jàngat bu ndaw bi ñu ci am épisode 37 bi daanaka damay wax ci Jalika ak Biram waaw daanaka jalika soo gisee toll ni am na ku ñëw wax ko information yi ne ko biram takk na sa xarit mu bett ko affaire yi des ci xolam dëgg la xaritam la da ko trahir te lu la bett man la waaye man tamit jàngat bi ma ci am conseiller boo xam ne dama koy jox jigéen ñëpp di ko jox tamit sama moroomu góor ñi <laughs> waa dana xamal ne daanaka sëy dafa nekk loo xamante ni balaa nga ciy dugg danga koy xool xoolaat ko bu baax moo gën nga ciy dugg di tas après sa xel di nekkaat ci góor ki nga bàyyi sa avenir di tardé dëgg la lu yàlla tudd ci jë doomu aadama kenn mënu ci dara waaye lépp nag dafa laaj ay sabablu loolu daal jàngat bu rëy la boo xamante ne sama mbokk jigéen ñi rawatina jigéen ñi def ci taxaw seetlu xool ko bu baax a baax balaa ngay génn ci sëy nga xool ko xoolaat ko mais génn ci sëy sa xel nekkaat fa wala sa xol di fa desaat am na lu ko gën wala dugg ci say pare di ci génnaat am na lu ko gën te àddina dara mettiwul lépp lu ñu waxtaanee rek mu daal di mën a tegu ci ordre am na yoo xamante ni yëfu noo science la rek loolu moo tax biñ ko waxee kaawu biram bi bett na ko te ba léegi muy génn ak waajur mi génneel mais xolam dafa jeng des ci biram ba léegi ndax ko amal ñaari doom du ay fo lii nag théâtre la jàngat lañ ci war a def mais nag ko amal ñaari doom ñekkatul ay foofu te soo góorgóorloo mu ñaar rek yàlla mën na laa jàppale loolu la def si benn jàngat bu gàtt daal ndax daanaka théâtre bi li tax ngeen def ko wala épisode ngeen def li tax ngeen def ko pour jàngat la mais nekkul lañ koy seetaan noonu rek après mu dem noonu ok seen liggéey rafet na. asalaamaaleykum yéen waa série maîtresse maa ngi leen di leen ziar bu ah, am tey. ñaareel bi mi ngi woote jàmm aaw bi du ko fekk si jàmm bi nag dëgg neexut ah nii lay def nag ba fintonis marem bu sëyijee après Cheikh Diagne day daal di jàng ndax la muy am ca marem du ko am ci laala laala day daal di mer ci saasi mu ngi noonu tuumaal na ko tëqal na ko te marem jàmm rek la ci doon wut ah maa ngi dem nag ci laala biram non biram man jaaxal na ma biram daal mën na ne jigéenu Sénégal yëpp la bëgg a takk xool ko xale bu jigéen bi rek mënoo ko yaa ma digoon takk door de ñàkk na xaritam ndax biram te biram jaru ko en tout cas daal man waaru naa man fi mu toll nii Jalika maa ngi ko yërëm mi ngi doon dund lu neex ak xale bu góor bi ko bëgg a takk noonu bëgg ko bay bëgg a dee te moom bëggu ko ndax lim dund ci sëy moom lay bañ a dundaat moo waral mu ragal en tout cas daal moom métti na trop métti na lool mais madame Diagne daal yow li ma lay xelal mooy bul faale bul toppatoo yow doxal laal la. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa Xew TV bi leen di bu baax di leen ziar di leen def seen wàccuwaay bu baax a baax di beral nuyoo suñu waa série bi macha allah. ñu ngi kontaan bu baax a baax eh, wax dëgg yàlla neex na trop eh, wax dëgg yàlla man daal lalla moom mi ngi bëgg a yàq deru aawo yi nag waaw lii moom moom fan lañ koy waxee ji ah, koo xam ne daf laa woo di la oo ci jàmm hmm? mu dem sosal ko yi sos moom bu feeñee nan lay def ah man wax dëgg yàlla moom tey moom moom moom wax dëgg yàlla laala moom li mu bëgg man xaw ma ko moom nan la war a mën a def ba du bokk Cheikh Diagne daal man fi ne jaaxal na ma eh, wax dëgg yàlla man daal moom moom moom daal moom wax dëgg yàlla moom bu woote na jàmm moom ah woote jàmm ku ko def di nga am jàmm moom mi woote geer nag ah baax na bu ko Marème wuysee ci guerre dina xam ne geer amul njariñ eh, guerre moom lu mu yàgg yàgg yàgg toog waxtaan rek koy jeexal. wax dëgg yàlla Mariam daal moom moom joxe na loxo moom bëgg na jàmm sëy la bëgg euh, Cheikh Diagne tamit benn nopp la waaw góor du doon benn nopp góor moom du doon benn nopp ba ñëwee waroon na ko laaj moom bi mu woowee laala lam la ko doon doyee mu toog tegal ko mu déglu ñoom ñaar ñëpp xool ba xam nan lay régler situation bi waaye ñëw rek dégg waxu kee rek tëb dal ci kawam moom tamit góor daal du doon benn nopp boo bëggee yor ñaari jabar da ngay jël say responsabilité ànd ak sa xel dal di déglu ña bu bu nit wax la nga déglu déglu ñaar ñëpp boo paree soog a mën a atte say mbirum mais nag wax dëgg yàlla ñi mu doxale nii daal borom kër du ko doxale moom salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen nuyu waa série maîtresse nuyu naa leen yéen ñëpp di rafetlu série bi macha allah neex na trop trop trop série bi dafa neex trop trop trop ma ko tardé su ma ko tardé ci télé bi maa ci YouTube bi macha allah neex na trop di wax Marem Jaañ moom sama mbokk ñaareelu boobu ñaareel xaddu ci këram kontaan nañ ci yow kontaan nañ bu baax a baax a baax di yokk sa loxo rek di gën a def ba mu baax mooy bëgg a ñëw na commentaire ci vingt 26 bi passé di wax joor joor moom li nga def moom dafa salte wax dëgg fa yàlla sa xaritu sa ex jëkkëru xarit nga nga sëyeeg moom dafa salte trop trop trop Sadiya ak Jalika seen diggante nim demee woon macha allah salte na daal salte na trop trop trop waroo woon a defee nii man moom yow laay jox tool bi du ma ko jox biram yow laa koy jox yow joor waa di wax ni Marème na xool ni muy doxalee bu baax a baax si digganteem ak euh, Lalla waaw comme tey mi ngi woote jàmm Lalla nga koy sosal fee ba Cheikh Diagne ñëw di dal ci kawam na xool daal ni muy bu baax a baax. comme moom dem jàmmal ràcc te laal la moom xam nga rek mooy loolu laal eh, Mariam daal del xool ni ngay xale bu baax a baax waaye ñi ngi rafetlu série bi nag bu baax a baax a baax macha allah neex na trop trop trop waaw di wax Mariam déet gën a def ba baax rek yow sa kanam sa kaw ca kanam rek <laughs> merci beaucoup. asalaamaaleykum waa série Maîtresse man mën naa leen bàyyi na ngi si jàmm baal ñu àq baal naa leen yal na nu yàlla boole jéggal yal na nu yàlla defal dàmm ci série bi gën a neex ah biram def na erreur biram ak joor bàyyi nañ seen loxo joor sax laay wax ndax biram moom ngir yee boppam la mais joor moom def na deli boo xamante ne lii taxul ñay wax xarit lii àndandoo la lii du xarit jalika am na lu jële naka kaw de affaire bi jële naka kaw loolu moo rafetul na tànk nag Marème Marème def na lu rafet na wax dëgg yàlla def na foofu lu rafet bi mu ooyee Lalla Lalla dafa waroon wàcce man Lalla ngay gis ku ma neex la sama xarit la wanne Lalla def na erreur foofu na bàyyi lépp mu sedd la jamono ji dafa naqari wujj du bokk du dara bokk wërsëg la te Lalla fees na palaasam fees palaasam boo xamante ne lii waru koy sax jaaxal waru koy yëngal na bàyyi yépp mu sedda teg yépp ci suuf billaay dina rafet ma su ma sañoon loolu lay def nit boo feesee sa palaas danga koy matale danga mareem lii mu def rafet na bi mu bi mu ooyee Lalla Lalla fa waroon wàcc Lalla moo waroon jëkke lii sax mareem mi xale di ko def mais Lalla dafa bañ Lalla mere naa ko fii torop nag mais nag <laughs> daf ma neex nag ngay gis Lalla dafa fees palaasam na yoo xam ne waru koy tiital wax dëgg yàlla série bi moom wax dëgg yàlla macha allah raki moom yërëm naa ko instant wax dëgg yàlla Moustapha nag na bàyyi problème bi te jàppale rakk fi mu toll nii ña xam secret bi waa baax na merci waay asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu ku nekk sa tur ak sa sant waaw ñu ngi leen doonoon seetaan seen émission émission 37 bi quoi voilà xool nañ ko eh, maîtresse na marié bi xool nañ ko léegi nii ñu ngi ko doon seetaan waa léegi nii quoi waa joor nag def na lu ñaaw joor ak seex def nañu ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw non nu mu tudd keneen kii mooy jëkkëru kii euh, joor kii. kooku moom tamit de biram moom tamit def na lu ñaaw moom ak joor quoi vraiment affaire bi warul demee nii nag <clears throat> affaire bi warul demee nii seex nag walla booy wax ak sa jëkkër jabar pardon muy wax sa jabar nag nga déglu ko bu baax nga dal sa xel d'abord parce que jigéen daa bëri pexe wala jigéen daa bëri pexe gis nga léegi lal moom wala daa wax woon si noppi seex euh, seex rek et c'est fini seex jal moom dem na loo wala xolam tàng na quoi voilà warul def nii nag vraiment vraiment lu muntu doon même bu dee Mariam Mariam moo la wax wax yi ñaaw yi lu muntu doon rek na xaar ba Mariam Mariam egsi d'abord bu egsi alors wala toog waxtaan moo ci gën quoi par rapport di tàng nii di wax waa yenn wax yi quoi loolu moom rafetul vraiment vraiment loolu moom rafetul rakki nag alors wala kaa rakki bi moom tamit nag rakki lu mu waxoon dégg la. Racky moomu tamit lu mu waxoon si gaañ bi wala dëgg la quoi vraiment vraiment mais yaayil nag nag il faut mu génn affaire bi na leer si noppu kii quoi wala na leer si nopp Racky moo ci gën benn yoon lool moo moo ci gën ni nëbbu nëbbutu nii quoi parce que voilà Racky moom dégg déjà commencé na ko dégg alors voilà mais c'est ça quoi waa tey moom macha allah tey moom mention spéciale la nag. vraiment tey moom mention spéciale la mais Lalla nag Mariam bu Mariam woote moom alors voilà Lalla waru Lalla moom tamit waru ko tontu tontu yi nii ah, vraiment vraiment waru ko tontu tontu nii tontu nii quoi adduna amul solo war na ko jàpp raq raq ak mag quoi vraiment vraiment moom tamit war na bàyyi yëpp a sedd quoi moo ci gën waaye nuyu naa leen TV nuyu naa Ah, épisode 37 bi moom tey moom hmm, day na waar waa ne Cheikh Diagne tamit ñu hmm, mu waxee waru ko a wax Marème baax na ba jël téléphone am di woote jàmm la paix hmm. loola dafa war a daw accepté jàmm ji bu ko defee ñu bokk jàmm ji waa ne waru koo sosal ndax lim ko wax nii Marème waxu ko Marème jàmm la doon woote mun naan ko saaga ndey ah, man daal wax dëgg yàlla laal man xàmmeetuma ko daal. lala daal xàmmeetuma ko yéeme na biram moom comme fit la biram rek ah, biram ëpp na ëpp na daal affaire bi daal tey daal kii bi daal mi ngi doon daal mi ngi daal yéeme na doy na waar lool Waly seex moom waroon naa réfléchir ba pare soo ko wax Marème daal jàmm ko jigul rek ba boobu muy def na mu daan def rek jàmm daal jigu ko na sëy sëy bi rek te bañati koo woo téléphone ndax laala daal damay jàmm doxu ko moom laal la moom jaaxal na moom ndox dëgg yàlla. asalaamaaleykum yéen waa ah, kontaan naa seen seen série bi wax dëgg yàlla man gisuma ci dara loo xam ne nii daal lu la wax dëgg yàlla Marème moom moom it def na dawaaram waaye laal la moom it day yàq fi na moom defu lu dul lu kii tàggoog seex. lu ma rem tàggoog seex te loolu du yoon loolu moom du yoon xam nga dèjà mi ngi nii di ko sosol waaw di ko sosol te lool du yoon te ma rem moom jàmm rek la doon ut laal la moom bëggul jàmm loolu nag baaxut jërë ngeen jëf maa ngi koy rafetlu wax yàlla toujours maa ngi koy seetaan su ko seetaan télé maa ngi koy seetaan ci YouTube bi jërë ngeen maa ngi kontaan bu baax. asalaamaaleykum yéen waa groupe bi. série bi tey moom kontaan nañ ci neex na trop neex na trop trop waaw ci kaaw laal la ak Marème Diagne waaw Marème Diagne tey lim def kontaan naa ci trop noonu mu def tamit lu rafet la lim def lu rafet la woo na laal la waxanteeg moom ci jàmm bëgg ñu nekk ci jàmm ñoom ñaar mais tamit laal tamit lim def waru ko woon a def parce que wax ju ñaaw ji mu wax tamit tamit ne moom dafa woote saaka te loolu yëpp mu wax dara amu ci loolu tamit waru ko woon a def. waaw loolu moom waru ko woon a def waaw waaw maa ngi kontaan si série bi trop série bi moom wax dëgg neex na trop neex na trop ak chaque jour fois dañ koy yàqamti dañ yàqamti série bi am waaw kaaw joor ak jalika waaw joor lim def lu ñaaw la lim def lu ñaaw la ndax am sa xarit amoo leen looy def di nangu jëkkëram waaw moom dafa bàyyante jëkkëram de waaye tamit waru ko woon a nangu di sëy ak jëkkëru xaritam war ko woon a def te moom xarit gi muy woo dëgg ci moom ndax la ngay xool li mu wax ci téléphone bi ak xaritan bi ne dama koy wo ne ko kii takk na ma biram takk te loolu muy wax gëmu ko ndax keroog bi mu ñëwee ci moom ñëwu ko woon a wax kon moom xarit gi muy woote dëgguwul dëgguwul en tout cas kontaan nañ ci série bi trop kontaan naa trop ci série bi maa ngi jégal ci kàddu yi nag bu dënkee ngeen jéggal ma xam ne sama waa groupe kenn ku si nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant tey nag day wax ci actualité Cheikh Cheikh ci Marème moom day bàyyi loxoom rakkam ji góor ji ñi ngi koy ak baaxut ci lan la li muy doxale baaxul surtout fii jeexe nag fii mu jeexe moom dafa duglu version ke te dugluwul kii du ko may mu wax mu xool ñaar ñoom ñaar ba xam kan moo nekk ci dëgg gi kan moo nekk ci fen wi mais moom dafa bàyyi xeet laal ba doonte dëgg gi ci mareen ma nekk sax laal lay jox dëgg gi teg sa rakk ñëw sa bureau di waxtaan ak yow di négocier muy defee neneen maa xam si ne dem na ba nga xam ne si ne kii dem na ba yónnee ay ndaw pour mu dugg ci bureau mu jël ay dossier pour seex ba tawul xam ne mu ciy def. day na waar daal xëy na si yow ci kanam dana soppeeku nan bàyyi xel ba ci kanam ba xam ok. salaamaaleykum nuyu naa leen waa Lu ci lu ngeen nekk yéen a ngi ci jàmm bu baax a baax maa ngi ziare ñëpp bàyyi ma kenn euh, di ñëw ci épisode tay bi rek hmm, di wax ci diggante hmm, Marème ak Lalla ndax Lalla moom seet naa ba seet daal bëggul jàmm bëggul jàmm te Lalla saytaane na. laal daal bëgguma jikkoom man li gën a bon ci àdduna mooy koo xamante ne nii day màtt di ëf te laala loolu mooy jikkoom day màtt di ëf loolooy jikkoom Marème nag instant bi lañ war a waxtaane dafa war a divorce wala lan la war a def dafa war a bàyyi wala ndax lii daal say jëratu ko ni ñu koy këllëkalee daal man metti na ma torop torop torop te lépp nag Olof Njaay nee na uude nu la gisee noonu la lay ëwalee mais nag gëm naa ko dina Marème nii nii dina dina yee jigéen ñu baree baree bari ba kenn ku ci nekk boo amee sa copain nga xam fi nga yem ak moom bu baax ndax ëllëg bu la takkee tamit jar na ciy suuraale de yu mel nii jar na ciy suuraale de ndax tey bu fekkoon ne mel na nam war a mel toog fa mu war a toog ba fekk ko fa takk ko duñ la mën a xas ci dara mais nag lii yëpp moo ko yóbbee boppam jigéen daal day réglé yem fi nga war a yem buñ la fa fekkee takk la nga mel na nga war a mel daal yaakaar naa ni moom euh, kenn du la mën a xas ci dara mais nag looloo tax laala nawloowu ko na torop torop torop lii daal yaakaar naa sëy moom jaru ko moom mais nag exemple la daal nit ñu bari daal jigéen ñu bari dinañ ci yeewu daal ci lii daal moom nañ ci yeewu ndaxte daal ëllëg daal lu mat a la wasalaam maa ngi jéggalu nag boo xamee ne juum naa ci benn kàddu. salaamaaleykum waa Xew TV euh, maa ngi commentaire ci série maîtresse d'un homme marié di wax série bi neex na trop franchement di wax laal moom léegi ay sos moo ko defee ah doy na daal lu metti metti nay wax dëgg rek dëgg moom mooy njëkk moo mujj na wax li ko mareem doon doye moo gën mu koy sosal naan daf ko doon saaga te mareem jàmm rek la doon wut lii daal moo tax ñu naan booy wut jàmm nit di wut ay doy na waar mais tamit yal tamit mareem téléphone am am enregistrement bi rek mhm. nga xam ne booy appel day enregistré yàlla àtti leen mais doy na waar daal franchement di wax tamit euh, nu mu Jalika mu muñ parce que xaritam bi lim ko def ñaaw na trop trop trop ndax gëm naa ne du xaritam parce que xarit boo ko amee nga bëgg ko lool doo ko def lu ko metti surtout ma doo ko def lu koy metti ci xolam day na waa daa di wax série bi neex na ñu koy rafetlu bu baax kontaan nañ ci bu baax a baax a baax merci beaucoup. waaye Baba Thérèse Danome siyaar naa leen bëgg naa leen torop dëgg yàlla may leen di bëgge baax a baax a baax sama xol sedd na ci yéen lu bari wàññi ngeen ko ci man lu bari dindi ngeen ko ci man mais tey moom dama kontaan ci Cheikh Ndiaye góor day am fulawaay waaye góor ñu jiital la nga jeng baax nit da taxaw benn côté ñëpp seet la waaw loolu mooy góor waaw kontaan naa trop bi neex na trop am na solo waaw Jalika tamit tey moom am na mbetteel trop ca xaritam muy coor moom xam naa moom soo moytu seen diggante fi lay yam ndax coor def na lu ñaaw te gis na lu ñëwee ci Jalika li mu ko gëmloo di gis na bi ko xarit bu la def wax nu mu ko neexee xarit boo te bu mu saana ñëw mosu koo conseil pour mu toog sëyam pour mu tas rek la ko doon wax côté boobu ci mi ñun jigéen ñi war nañ ci yeewu naan la tasa sa sëy bi tasa sa sëy bi ci mi ngi si wa am sëy sëyut di taxawaal bu xëyee gàddu saagam day traîner waaw mënul fexe ba am place léegi lijjanti na ba am place ci xaritu jëkkëram loolu tamit metti na torop ñun jigéen ñi war nañ ci bàyyi xel waaw beneen bi ci topp mooy lalla lalla kontaan naa ci moom jigéen dangay ngay jiiñ mat li nga doon waaw ndaxte mare mbarum ñoom ni mu doxale mu doxale ko ba pare bëgg a wëlbati bu waat tourné paas bi noonu mu yomb non nañ tourné paas bi mais du yomb bu mu yomb bu ko la daal di may day yomb ci côté trop ba léegi day defaat lu gën a pire lim defoon waaw la tamit kontaan naa na torop mu tourné moom it dimbali kii Racky Racky sonn na torop moom fi dégg yàlla ndax moom moo ko doon dimbali ci bari te fi ñu toll nii kaawam taxaw na kaawu papaam bi ci aussi noonu na ko jàppale daal jéem a fàtte li fi jaar da xam ne mooy loolu seytaane wax dëgg waaye yàq na xel waaw merci beaucoup kontaan naa ci yéen torop nag moom ngeen di def neex na am na solo daal merci beaucoup. salaamaaleykum commentaire ah Marème tey def na tojaanga tey waxoon naa leen Marème dafa ëppal ëppal la def laala moom mas na palaasam net du yëngul def dara laala ëppal na Marème ëppal na waaw paas na ëpp laala wax. Mhm. ah jëli ko tamit moom tey am na lu ko métti moom it joor def na lu bon waaw ah dafa ak kii moom dinañ juboo tey moom nee na gis naa ko dégg naa ne mi ngi fi dina gën a neex de waaw. di waxaat ci maîtresse d'une femme mariée rek di nuyoo di wax salaamaaleykum tamit mbokk yi ma fi nag eh, sama liggéey moom ma mayul. temps bi ba duma mën a seetaan maîtresse ci YouTube bi rek laa koy xoolee maa ngi koy doog a seetaan tey ji waaw di woo nag euh, Marème di ko wax rekk ni ko waaw sa wujj nag woo nga ko baalu ko ak moom nangu la baal mu woo la ci nag ci ci guuxum soow wuyu ko ci ba mu neex waaw comme que moom laal la bëggul jàmm woo nga ko pour jàmm moom bëggul jàmm uyu ko ci ay bi gis nga wujju lenn rek la xëy di solu ba rafet defaru ba jekk ku la gis defe ne sa jëkkër la ko defal fekk yaa ko defaral sa bopp mu lay gis xolam di dagg nag waaw moom lu muy dof dof lu nii du nangu rekk te mu accepté te nangu sëy bi nag xam ne yàlla def na ko ba pare ngeen bokk wërsëg mais mu bëgg nekk nag tey jii nag nag di nekk di xuloo ba kaña xuloo bi kaña lay jeex mareem nag ah Cheikh Diagne di ko fase tey du ko fase ëllëg parce que bu ko fasee rek Marème gëmul li mu doon waaw Marème may sëy ba sëy fu dara nekkul waaw moytu sax yow mii euh, yow Cheikh Diagne fase la yow yow Lalla Lalla sonal na nit ñi waaye na bàyyi xale bi mu sëy sëyam oo nga ko ci jàmm nag uyoo la ci jàmm demante leen ci ba mu neex saf sàpp nag fu mu yem neex waaw te bul nangoo sa benn doon xamal la dara ci sa biir euh, sa jëkkër sa diggante ak sa jëkkër loolu laa amoon ci lu may wax ah. jaam la ñu sosalaate nan awa nan ñaareel la ñaareeli la ñaareeli te buñ leen dee woo ci jaamu nag lu ñu wusi ci jaamu de dañu wut plan bu ñu teg bàyyi leen foofu marem deful dara marem deful dara. maram ci jàmm la ko doon woo wuyu siwu ko ci jàmm mu coupé téléphone jàpp boppam jëkkëram ñëw mu duy noppam ba mu fees na ko damay saaga damay lii damay nàngam ii jikkoom la wane rek gis nga fii koo takkal wujj wane jikkoom jikkoom rek la wane kii moo yabaate kii moo yabaate dëgg dëgg dëgg kii moo yabaate ki ñu woo ñi ñii la ñu def mun leen leen woo ci jàmm ñi sos ki kii di ko woo ci jàmm mu koy sosal waaw asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax série bi tey seetaan nañ ko seetaan nañ ko bu baax te j'espère aussi kenn ku ne am na liñ ci liñ ci jàngat waaw man tey daal laal la tey moom laal la lay blâmer bu baax a baax a baax a baax donte sax sama fans la dama bëgg torop mais tey moom jëfam moom man rafetaloo ma ko sax waaw parce que ñu ñëpp kenn ku ne xam na la kii lu mu wax Marème Marème daf ko woo ngir baalu ko nan ko dama bëgg ñu teg armes yi nekk benn comprendre nga même sax ki nu mu tudd Marème lu mu doon wax dëgguwul ci moom gaa nekkul lu dëgg ci moom wanewul loolu nga parce que bu mu coupé téléphone bi toog na encore di di wan di waxaat ay kàdduwam yooyu noonu mais Marème kenn xamul lan la wax Cheikh waaw te lu mu wax Cheikh aussi du lu taxaw du lu dëgg ndax ñun dégg nañ bu baax Marème lu lan la ko wax waaw man daal su ma sañoon moom laal la du def loolu waaw moom daal na nekk ci dëggam taxaw ci dëggam chaque fois daal bu fekkee dañ koy tooñ nañ ko tooñ ci dëggam mais daal mu bëgg di jouer yii nii loolu moom man doxuma ci dama bëgg xaritam boobu keroog ko doon conseil na ko conseil waat encore joxaat ko ay conseil yu baax mu taxaw ci yoon boobu noonu biram nag moom lu koy xaar moo ñu foofu biram day jàng bandi jàng woyu dina xam ne Bakary Sagna mii moom la ko diggaale moo ko gën a bandi moo ko gën a woyu parce que yaay ji junj na ko tuuti ci wax moom na comprendre ci kanam xam naa nañ xam lan moo nekk ci biir Jalika moom man maa ngi koy mastaw bu baax a baax a baax a baax waaw ci trahison xaritam bii mu am nii metti na torop mais lii yëpp pour suba rek waaw xam ne dëgg la xaritoo am na mais lu jara soolaale la du chaque fois xarit lu mu la wax rek loolu nga war a def te xam naa moom jalikare moo ko jàppee xarit mais joor jàppewu ko xarit ndax xarit bu baax du def li xarit bu baax du def lii te meer ba nee na dafa kontaan moom lu koy xaar ngi ñëw te du joor rek dina ko wol ni tigadege nañ toog rek seytaan ñu xool ci kanam raw li bët waaw loolu rekk laa gis ci série bi mais à part moom neex na laala moom ma dellu si encore kontaanuma bugguma double jeu bi bëgguma ko waaw